jàngalante ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu te ñu jukki woon ci téeréem bi nga xam ne moo tudd Nahju Xadaa'il Haaj di jàngale li nga xam ne moo di ay teggiin waaye di jàngalante di jàngale jëflante bu rafet bi nga xam ne moom la nit ki wara a jëflante ak ñi nga xam ne ñoom la maaseel waaye ñi nga xam ne ñoo ko féete ak mag waaye ñi nga xam ne ñoom la féete ak mag ci jëflante boo xam ne lépp ci ay teggin lay aju waaye ci worma lay tegu waaye ci ab yar lay tegu kon ci téere boobu ci lañ doon ànd ak yéen ci ay bis bu jot ba ci suñu uh, tomb bi mujj wala suñu bind bi mujj ñu àndoon ko ak yéen ba taxawoon ci ci fi nga xam ne foofu la sëriñ bi di euh, waxe ne njàngum mat de ñu koy nuróole ak li nga xam ne mooy bind ci kaw am ndox ngir ñàkk sax gi nga xam ne moom lay ñàkk sax ci boppu euh, mag mi waaye nag kon loolu li muy firndeel mooy am njàng Euh, jamono ju nit ki mën na koo def waaye ca jamono jëm gëne mooy jamono ja nga xam ne ca la doone ndaw ba nga xam ne dara euh, fëkkagul am xelam lu bëree bëri dana koy mën a jàpp ndax soxlay àdduna dabagu ko euh, moo tax sëriñ bi doon digle ne na ngeen fonk xam-xam bu baax a baax bu leen bàyyi xam-xam mukk ci benn jamono ndax xam-xam mooy li nga xam ne mooy leeral ab xol ci foofu lañ taxawoon ci sara boobu nga xam ne moom la doon sara bayit yooyu nga xam ne ci la doon leeral loolu euh, ñuy continuer rek ba tey sëriñ bi di wax ne kama xiila ni ki ñu ko waxe al ilmu xam-xam fiihi nekk na ca xayaatun ak dund lil xulubi ñeel xolya kama taxya niki mu dunde albilaadu réew ya isa ma ndeem laal na ko almataru ab taw sëriñ bi radiallahu anhu wax na ne xam-xam day xol boo xam ne am na ko xol booba day dund maanaam xam-xam mbir la moo xam ne day dundal ab xol niki nga xam ne noonu la ab taw di dundale suuf niki ab taw di dundale suuf di saxal gàncax noonu la xam-xam di dundale ab xol waaye noonu la koy euh, naatale waaye noonu lay jariñe li nga xam ne moo di ab xol kon loolu li muy tegtale mooy am solo goo xam ne am na ko solo sëriñ bi di waxaat ba tey ne wala mu xam-xam yajlu day wuññi alama ngumba xol an qalbi saaxibihi ci xolub boroomam an ci boroom xam-xam ba kama yu jalli ni mu wuññee wala ni ki mu muree sawaada zulmati ñuulaayu lëndëm ba alxamaru weer wa wala kama yu jalli ni ki mu wuññee alxamaru weer wa sawaadu zulmati lëndëmuk guddi ga euh, kon xam-xam sëriñ bi nee na day dindi li nga xam ne mooy ngumba xol day dindi ak réer ci xolub doomu aadama bi waaye day tax doomu aadama bi xam fan lay teg tànkam waaye day tax doomu aadama bi xam naka lay jëflante ak nit ñi waaye naka lay jëflante ak ñi nga xam ne ñoom la ko suñu borom subhanahu wa booleel comme ni nga xam ne noonu la weer di leerale ak lëndëm ne na xam-xam noonu lay leerale xorub xolub boroom waaye xam-xam euh, ci taxawaay boobu lay amee ki nga xam ne moom la ko suñu borom bi subhanahu wa taala jox kon loolu tax na sëriñ bi radiallahu anhu di ci soññee di wax ne yaa ayyuha shibbaanu in xiftum xajal fa xaddimu taalluman ala al amal yéen ñi nga xam ne yéenay waxambaane yi su fekkee ne ragal ngeen gàcce na ngeen jiital xamlu bala ngeen a jëf jëf ju ngeen bëgg a def bala ngeen koo taxaw di ko jëf na ngeen ca jiital li nga xam ne moo di xam-xam euh, moo tax mu waxaat feneen moom sëriñ bi radiyallahu anhu ba tey ne talabuhu faridatun muammama li kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam day faratala la joo xam ne ju daj la maanaam farata ju daj la ci ñépp ku ne war na koo sàkku moo xam jullit bu góor moo xam jullit bu jigéen waaye képp ku di ab jullit rek war ngaa sàkku xam-xam rawatina li nga xam ne moo aju ci fardul ayn mooy farataay jëmm yi nga xam ne nit ki kenn mënu ko koo defaaleel waaye moo koy euh, defal boppam sunu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom it wax ci alxadis ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam de farata la ci bépp jullit bu góor waaye farata la ci bépp jullit bu jigéen kon kom faratala nag ku ne war na caa taxaw ci la nga xam ne mooy moo cay farata nga xam ko ba euh, di ko sàkku te la cay farata dara gënu caa yàlla xam li nga xam ne mooy al euh, faraidul ayn mooy farataay jëmm yi nga xam ne benn mukallaf war te jëf lenn te euh, xamu ko ndax suñu borom bi subhaanahu wa taala euh, dañuy wax ci xadisul xudsi ne suñu borom moo wax ne taarifuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni na ma xam doog ma jaamu ndax su ngeen ma xamut du ngeen ma mën a jaamu te suñu boroom kenn mënu koo xam te jaarewu ko ci li nga xam ne mooy xamlu waxaala wax na ashaa'iru waykat ba bil mi ci xam-xam taxyaa lay dunde xuluubun ay xol yoo xam ne ma arafat xamul woon xattu darra min xablu ci li jiitu mal farqu ana lan moo teqale baynal xaq ci diggante dëgg wal may ni ak ay ay duur muy ay wax safaanu dëgg wal ilmu xam-xam nuurun ak leer la li nafsi ñeel bakkan tastadillu bopp dana tegtaloo bihi ci moom alal xaqaayiqi ca dëgg-dëgg mbir ya misla nuuri kem ak leer lil ayni ñeel ay bët Euh, saar bi wax ne xam-xam day mbir la moo xam ne ci la xol yi di dunde ndax bépp xol boo xam ne xamutoon lu jiitu muy xam dara lu jiitu muy xam diggante euh, teq lan mooy teqale dëgg ak wax lu dëgg dana euh, xam-xam mooy dundal ab xol ba mu xam li nga xam ne mooy teqale diggante dëgg ak ak li nga xam ne mooy safaanu dëgg kon ci xam-xam ne ci la ab xol di dunde ba xam li nga xam ne mooy teqale diggante dëgg ak wax loo xam ne ab safaan la waaye xam-xam ne naa ak leer la goo xam ne nit ki dana ci tegtaloo ngir xam dëgg-dëgg mbir ya comme ni nga xam ne noonu lay tegtaloo ci ay bëtam ba xam fan la mën a joggi ci lu koy gaañ walla lu koy lu koy lu koy lu koy jaarale ci aw yoon woo xam ne yoon wu baax la kon limuy muy mooy nit ki xam-xam su fekkee ne mi ngi ak moom mi ngi ànd ak moom Euh, lu muy jëf xam-xam la cee jiital loolu euh, daf koy dimbali waaye daf koy euh, jubal waaye daf koy gindi ba mu xam fan lay teg tànkam bu baax a baax a baax kon looloo tax mu ne xam-xam de mooy li nga xam ne mooy dundal xol boo xam ne lu jiitu xamul woon dara ci luy teqale diggante dëgg ak wax ab safaan waaye nag ab xam-xam mooy li nga xam ne mooy leeral bakkan ba nit ki xam ci dëgg-dëgg mbir fan la ci teg tànkam waaye euh, xam-xam mooy li nga xam ne mooy gind nit ki comme ni nga xam ne noonu la ko ay bëtam di gindee mu xam fan la wara a teg tànkam moo tax mu ne wa annahu naka moom yuallimuka dana la xamal bi anna naasa naka nit ña innama yatafaawatuuna dëgg-dëgg dana rawante bil ilmi ci xam-xam wa diini ak diine wa bihimaa ci ñoom ñaar yu faddalu lay gënale man ka nga xam ne fuddi la gën na laa min jihatil ansaabi du caageene ci wallu askan li abbin ñeel baay wa ummin ak ndey kama xaala ni ki mu waxe aliyun seydna ali karrama yal na teral allahu yàlla wajhahu jëmmam ja nena ci saraa bi moom dina la xamal ne euh, na nga xam ne nit ñi de ci li ñuy gëm a gënantee du dara lu dul xam-xam ak diine maanaam ku la gën ku la ëpple xam gën laa mën a jëfe xam-xam ci wàllu diine nee na na nga xam ne kookee la gën waaye képp koo xam ne euh, ëpp la xam-xam gënu laa jëfe diine ak kookan lu mu mën a sant ak nu mu mën a doon martaba bu mu mën a amee na nga xam ne kookee gënu la ndax la nga xam ne moom mooy tax a gën Euh, kookee nekku ca ndax suñu borom subhaanahu wa taala mooy wax ci alquran ne hal yastawi allazina yaalamuuna wallazina laa yaalamuun ñi nga xam ne ñoo xam ak ñi xamut ndax danañ yem ñoom ñaar mënuñoo yem ndax ki xam lu muy jëf ci xam-xam la koy teg waaye ki xamut moom buy jëf euh, day jëf rek du xam euh, la ca baax ak la nga xam ne moo ca di ab safaan suñu borom bi subhanahu wa taala waxaat ba tey ne yarfau llahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat suñu borom de dina yëkkati ñi nga xam ne ñoo gëm ci yéen ñi nga xam ne ñoo ko gëm ci yéen de suñu borom bi subhanahu wa taala dina leen yëkkati waaye ba mu waxee ñi ko gëm ba pare ña nga xam ne ñoom la ca teg mooy ñi nga xam ne dañoo am ay martaba waaye dañoo am ay daraja waaye fuñ ko jëlee ci xam-xam rek lañ ko jëlee maanaam sàkku xam boo xam ne suñu borom subhanahu wa gërëm na ko foofu lañu ko lañ ko jëlee kon loolu day tegtale ne sàkku xam-xam boo xam ne day jariñ doomu aadama bi bokk na ci li nga xam ne euh, suñu borom subhanahu wa taala euh, bëgg na ko waaye bokk na ci lu suñu borom subhanahu wa taala euh, fonk lool mu ne seydna ali radiallahu anhu wax na ne annaasu nit ñi min jihati tamsili ci anamuk melal ak faa un ay nawle lan abuhum seen baay aadamu mooy aadam wal ummu seen ndaw nday xawaa u mooy xawaa euh, seydna ali radiallahu anhu nee na nit ñi day ñoom ñëpp ñoo nit ñi day ñëpp ay nawle lan ndax seen baay ñoom ñëpp mooy aadama waaye seen ndey ñoom ñëpp mooy xawaa kon foofu tàqale ci diggante ay sant wala ci diggante ay askan loolu lépp feeñu fa waaye lafa fa feeñ mooy nit ñëpp ci fenn lan soqi ko mooy ci seen baay aadama waaye ci seen ndey xawaa ndax nit ñëpp ci ñaar ñooñu ci lañu soqi ko kon foofu gën mënu faa am ndax suñu borom subhanahu wa taala ne na inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen de mooy ki nga xam ne moo gën a ragal yàlla waaye nattuwaay bi foofu joxu ko benn askan joxu ko benn sant kon lool day tegtale ne euh, nit ki euh, bu mu yaafuus waaye bu mu deltu ginnaaw mukk ba jàpp ne kenn moo ko gën li feek mi ngi ci digal yàlla yi di euh, moytandiku tere suñu borom subhanahu wa taala na xam ne moom mi ngi ca la nga xam ne ca la war a nekk moo tax mu ne fa atayta ndéem dikke na bi faxrin ci ak ndamu min zawi xasabin tukkee ci ak ngor maanaam tukkee ci ak kañu wala ci ak puukarewu yu faaxiruna ñuy ndamoo bihi ca moom tiinu euh, ban wal maaw ak ndox nee nit de saa bu jugee fële ñëw di la euh, jaay ab tiitar wala mu lay won man ci askan wii laa bokk wala ci euh, sant wii laa sant wala nii laa mel nee na na xam ne ñëpp de ci ban ak ndox rek lañ bàyyi ko ndax Adama alayhi ak euh, suñu euh, yaay Hawa ñoom ñëpp ci ñoom lañ soqi te ñoom ñëpp suñu borom ci ndox ak ban la leen suñu borom subhaanahu wa taala binde moo tax mu ne mal faxru déet ndamu wala deet pour ko illa li ahlil ilmi ndare muy ñeel borom xam-xam yi innahum naka ñoom adillaa ay tegtal lan alal huda ci ak le manis man da ñeel képp koo xam ne sàkku naa jub nee na faxru daal muy ndamu ak kañu daal suñ koy wax nee na borom xam-xam yi dong ñoom ñoo ko war a def waaye borom xam-xam yan mooy ñi nga xam ne ñooy jëfe ndigalul suñu borom bi subhanahu wa taala dañoo xam li ñu xam ba pare di jëfe li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle kon nee na buñ doon wax ne ndamu war na wala puukarewu war na euh, borom xam-xam yi rek ñoo ko war a def ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy tegtal nit ñi ci ak jub waaye képp koo xam ne moo sàkkoo jub te ñoom lay jawali te ñoom lay euh, wutali kon loolu day tegtale solo soo xam ne euh, xam-xam am na ko am na ko solo waaye solo si dana gën a feeñ ci yonente yi alayhim salaam bokk na ci liñ daan ñaan lu ëpp ëpp dañ daan ñaan suñu borom bi taala mu dolli leen euh, mu dolli leen li nga xam ne mooy xam-xam Euh, Seydina musa alayhi salaam gis nañ ko muy ñaan suñu borom ba mu demee ba koy ñaan ñaanu ko lenn waaye dane ko yow suñu borom subhaanahu wa taala yal nag mu dolli xam-xam mu ne ko waxul rabbi zidni ilman yow suñu borom subhaanahu wa taala yal nag ma dolli euh, li nga xam ne mooy xam-xam suñu borom bi subhaanahu wa taala bàyyi borom xam-xami xel bu baax a baax ba nga xam ne. Euh, am na ay aya ci alquran yoo xam ne euh, su ko suñ borom di jeexal jeexintalub aaya ba day wax ne ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ñooñu lay waxal moo tax mu wax ci alquran ne ci ab aaya mu ne wa tilkal amsaalu nadribuha linnaasi wa ma yaqiluha illa alaalimun maanaam misaal yi nga xam ne moom la ñuy joxe day dañ koy teg di ko wax ñi nga xam ne ñooy borom xel yi te kenn du ko xam ci borom xel yooyu ñu dul ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi ñi koy xam ci borom xel yooyu de mooy borom xam-xam kon loolu day tegtale mm, nit ki euh, xam-xam euh, solo soo xam ne am na ko waaye it bàyyi xel goo xam ne suñu borom subhanahu wa taala bàyyi na ko euh, xel xam-xam bu baax a baax a baax moo tax ne wa qadru kulli mri'in daytalu jépp cem maa mooy la nga xam ne kaana nekk na yox sinuhu di ko rafetal fal jaahiluuna way réer ñi adaa u ay noon na li ahlil ilmi ñeel borom xam-xam yi nee na euh, kemus cëpp cem daal mooy la nga xam ne moo koy rafetal ndax ñi nga xam ne ñooy euh, way réer ñi ñi nga xam ne suñu borom dafa dogal amuñu xam-xam suñu borom dafa dogal li ñuy jëf duñ ko teg ci xam-xam ñooñu fuñ toll dañuy noonu borom xam-xam yi ndax lan moo tax ñuy noonu borom xam-xam yi borom xam-xam yi dañuy jëf dañ koy teg ci xam-xam te ñoom li ñuy jëf duñ ko euh, teg ci xam-xam su ko defee ñu jàpp ne borom xam-xam yi dañ leen di xeex wala yu euh, aju ci loolu te fekk na ñi nga xam ne loolu li muy tegtale rek mooy li suñ borom wax ne ñi xam ak ñi xamut duñu euh, duñu masa yem ñi xam ak ñi xamut duñu duñu masa yem kon xam-xam nit ki euh, dafa war a xam ne bokk na ci li nga xam ne moo koy moo koy moo koy mooy tax mu xam fi muy teg tànkam waaye dina euh, xamit li nga xam ne moom la suñ borom bi subhanahu wa la bëgg mu koy dox waaye li suñ borom bi subhanahu wa di ko euh, tere mu koy moytandiku bu baax a baax a baax ndax képp koo xam ne suñu borom bëgg na ci yow aw yiw dana la xamal li nga xam ne mooy diine te xamal la diine mënta am ci lu dul nit ki xamlu moo tax mu ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diini képp koo xam ne suñu borom bi subhanahu wa bëgg na ci aw yiw day dina la xamal li nga xam ne mooy diine suñu borom bi dina la xamal li nga xam ne mooy diine mu ne fa fuz na nga tuufu bi ilmin ci ak xamlu temps kon nga dund bihi ca xam-xam ba xayan ak dund goo ak dund abadan ba faw annaasu nit ñi mawtaa ay way faatu lañ wa ahlul ilmi borom xam-xam yi nag ahyaau way dund lañ nee na xam ne de ñi nga xam ne ñoo am xam-xam ñi nga xam ne suñ borom da leen a sédde xam-xam borom xam-xam yi de na xam ne ñoom de ñu ngi waaye képp koo xam ne amoo xam-xam di dox na nga jàpp ne yàqu faatu yéen a yem ndax li ngay dox euh, li jëf doo ko xam-xam waaye. li ngay jëf ci agréer rek nga koy teg euh, di ko jëf ne na kon nanga nga fexey ba tuufu ci xamlu ngir ne xamlu soo ko defee ci ngay dund dund gu teey waaye ci ngay dund dund goo xam ne euh, dund gu am jàmm lay doon waaye dund gu euh, am barke lay doon te it li ngay jëf lépp da koy teg ci xam-xam wa annahu naka moom yuallimuka dana la xamal bi anna mimma yuinu naka bokk na ci la nga xam ne dana dimbali ala taallumi ci ak xamlu wa yusahilu tamit yombal sabilahu aw yoonam an tatawarraa mooy nga sàmm fii ilmika ci sa xam-xam wa tatlubahu ak nga koy sakku lillahi ñeel yàlla wa qillati nawmi ak néewal ay nelaw wa qillatu sibai ak néewal ak regg wa mulazamatu darsi ak taqoo li nga xam ne mooy euh, euh, bind ba nena na xam ne bokk na ci liy dimbali nit ki ci xam-xam ci sàkku xam-xam waaye bokk na ci liy dimbali nit ki di ko yombalal li nga xam ne mooy yoonu sàkku xam-xam mooy mu sàmm maanaam bi daw lépp loo xam ne day dox digganteem ak euh, digganteem ak xam-xam mu koy moytandiku bu baax a baax ci saytaane ak lépp loo xam ne mën na koo gàllankoor waaye mu koy sàkku te yàlla rek tax waaye mu fexey ba niiwal ay nelawam fexey ba niiwal ak reggam waaye fexey ba takkoo la nga xam ne mooy bind ba nga xam ne moom la jël bind bëpp boo xam ne moom la jël muy bind bu tooy bu mu ko xaare suba waaye na ca fexey nekk ca di nat na bi euh, ngir loolee mooy la nga xam ne mooy tax euh, njàng ma sax ca bopp ba waaye loolu mooy li nga xam ne moo koy dimbali bala muy jàng mu man koo mu man koo xam ndax Euh, nit ki su fekkee ne day jàng ba pare di euh, euh, négliger wala muy muy muy muy soobental njàng ma bu boobaa la mu ca bëgg dëgg-dëgg mën na koo bañ a am te seytaane mën na koo jàpp ba ba ba la nga xam ne moom la ca war a taxawee dëgg-dëgg muy taxawaay ba mu ci war a amee dëgg-dëgg du ko du ko def kon ne na ngi lay digal dëgg-dëgg su fekkee ne bëgg nga jariñu ci xam-xam boo koy sàkku nga jox ko yitte bu baax a baax ndax loolu moo lay yombalal am nga waaye loolu mooy tax euh, loo ci bëgg man ko caa am mooy tax nga man caa euh, jariñu kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te it bokk na ci solo si mu am yonente bi saa sallam mi ngi wax ci ab xadis ne saa bu nit ki faatoo jëfam yépp dagg na ba def ba mu des ñett euh, bi ci jiitu mooy isa maatam adam in xata amalu illa min salasa sadaxatun jaariya sarax soo xam ne moom la defoon euh, euh, muy muy mu yool ba di ko fekk fa nga xam ne moom la tëdd aw ilmun yuntafa'u bihi wala xam-xam boo xam ne wàcc na ko fi nit ñi di ko jariñoo aw waladun saalihun yad'u lahu wala doom ju baax joo xam ne yaroon na ko jàngal ko xamal ko diine mu euh, nekk ci ginnaawam di ko ñaanal nee na ñetti mbir yooyu rek bu nit ki xasee faatu ñetti yooyu moo ca des kon la ñu ca yitteel mooy xam-xam bu am njariñ boo xam ne nit ki wàccoon na ko fi ci ginnaawam euh, nit ki wàccoon na ko fi ci ginnaawam ay nit di ci jariñu te loolu mënta am lu dut euh, xam lu bala nga fee euh, bàyyi ko kon loolu li muy tegtale mooy solo soo xam ne xam lu am na ko solo waaye it jox yitte goo xam ne nit ñi war nañ ko ko jox bu baax a baax a baax a baax kon ñi ngi tuub bu baax te jéggulu di wax ne in uridu illa al islaha ma stata'tu